mbokk yi dégg ngeen fii produit sexuel bu ne waaye ngóor kàttan moo jël ndam li moo jaaxal ñépp waaw ngóor kàttan li tax mu jël ndam li mooy dañu ko defaree à base de dinjeer petit cola bisaab ba ci reenu senjeen waaw ngóor kàttan dafay fàcc lu jëm ci wàllu ballonnement de ventre wàllu constipation maanaam seere wàllum faiblesse sexuelle maanaam dangaa tëlee ngóor kàttan nii moo ci baax ba noppi daf lay jox appétit sexuel maanaam saa yoo ko jëlee da ngay am kàttanu sëy awra ba noo ko bëggee noonu nga koy defee mbirum éjaculation précoce nag moo ci gaaw maanaam bu fekkee da gaaw a yëg sa bopp di gaaw wàcc ngóor a kàttan mi moo ci gaaw li ci gën a neex nag mooy amul benn effet secondaire maanaam mën nga ko jëfandikoo te du la gaañ benn yoon wàllum douleur wàllum diabète wàllum sinusite nag moom kenn demul mu des da koy dindi ba mu set wecc lu jëm ci biir boo xamante ne dafay metti nag maanaam biir bu lay sonal boo ko jëlee daf koy nettiwaay ba mu set nag mu ngi noonu ci ngóor a xamante ne wàllum kàttan moo ci mënti Sénégal woote leen ci numéro téléphone bi 77 240 97 97 kon nag ngóor a kàttan mooy buuru produit kàttan yi Grand Mbao daa fi fekk benn événement bu rëy a rëy boo nag artistes yi ñoo ko organisé yan artistes mais ñi nga ñooy pataañ yi ak sew yeel yi ñu ñëw fii nag ci Grand Mbao stade Grand Mbao ay artistes doon moo fi nekk nag ñu wan ne nag tey jii nag moom Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xaar ñaar loolu moo waral nag ñu ñëw nag waa ànd waa sunu people ñu ñëw ba fii ci stade bi wan nag ay artistes képp koo xamante nag féere ma koo gis rek boo ñëwee fii ñu ngi fii nii ci Grand boo ñëwee di nga ko gis kon nag ñu doxantu tuuti xool artistes na lañ toogee Moustapha nuyu nañ la. ñu ngi lay fay soxna. ñu gis ne da ngaa ñëw tey ci match bi Séville ak lu waraloon sa tànk fii. waaw match bi dama bokk ci li nga xamante ni bi ñu waxee amee initiative man la njëkk woo donc mu nekk loo xam ne lu am importance ci artistes yi ndax artistes yi dañoo war a booroo nekk benn. looloo tax ñoo xit organisé ko nii parce que biñ koy organisé sax defe naa doon farce mais tey boo gisee tribune bi mu nekk nii wane na ni Sénégal jox nañu bopp artistes yi donc ñun artistes yi war a booloo nekk benn loolu la. ne am gis naa benn solidarité ndax artistes yëpp gis naa ko fi nan nan ngeen ko organisé ba mu ab jaar ba ñëpp ñëw wis leen. waaw dañ ko ubbi comme tey rek def benn groupe WhatsApp gars yëpp participé après ñu def benn comité d' organisation organisé ko bu noonu rek lañ ko defee. waaye ñu ngi gis ne yaa ngi su meeku woo dem ci léegi lu tax loolu. waaw man dama waroon fubal mais comme euh, dama am tournage moo tax fubalu ma. waroo fubal dootoo Tapha ci ñan ngay far ci sew yi li ngay far wala ci pataay. non man sew yi sew yi si ñëwoon dañoo mën contrat dama bañ pataay si ñëwoon dama contrat dama bañ loolu moo tax fubalu ma. parce que bañ fubal fii gars mer fubal fii gars yi mer mais bon fépp benn la daal. fépp benn la sax pour yi am solidarité artistes yi am nekk benn daal lool moo tax ñu def ko parce que boo gisee tey lii ni mu demee nii nga xamante ni tey artistes yëpp benn la te population Sénégal sax laay wax na ñi ngi gërëm nag waa dem dikk ñi nga xam ne ñoo yombal ñi seetaan ci déplacement bi vraiment kontaan nañ ci ñoom trop am maire bi nga xamante ne moo ñu amal stade amal ñu centre bi artistes yi doon regroupé vraiment ñi la leen di kontaane bu baax a baax waaw mu mel ne nag sunu people TV ba tey dafa nekk fii nii ak ak ak artistes yi nga xamante ne nii ñoom ñoo ki di gis nga leen ñoom ñëpp ñu toog nii garaan dafa mel ne dafa mel ne dafa mel ne dafa mel ne sew yeel yi ñoo ñoo gañe de. waaw ñoo dugal benn. yow yow yow yow yow yaa ci kan yow yaa ci kan. waaw ñu ngi lay sew yeel. sew yeel yi waaw ñoo dugal noonu. ngeen dugal bii bi. mu mel ne yéen yéen yéen nga ngeen organiser match bi lan moo tax lan moo leen jox waaw euh, xam nga génération bi dina temps ñu gën a wane waat beneen image comédien bi ñu xalaat ko beneen bët wax dëgg yàlla dafa naan jox leen ko ci moom mais yaay wane bon exemple te loolu bu ñu yegg fa il faut ñu àndal suñu biir ñu xàttandoo di dóorandoo moo tax ñuy xool ay affaires yoo xam ne ñuy fédéré bi ñu boole lu mel ni match bi ak stress bu ñu jógee comme Covid beeg yooyu gëj nañ liggéey ñu ne ni ngeen bëggal suñu bopp ñu xoolaat ak match bi. yow dafa mel ne sewoo de lu tax nga bokk ci sewiyeel yi. ah mais. yow mii c'est mu yaroo ñu bu ñu réew ñu dóor kat. waaw gis boole li bu ñu bu pataay ñu dóor leen un bu yaru ñu dóor leen kat moom ci seen yéen la bokk. yow a ak pata nu mu demee noonu. waaw xam nga pata yi dañoo bëgg yëpp. te pata amul a njëriñ. dañ doon ñëw fii pour wan leen fi ñu bokk. xam nga déjà ñoo leen mën a 1 0. waaw léegi nag li kanam rafet na di leen sant di leen ziar di sant waa Sidi ba pare man damaa a a paas. da ngaa génn da nga génn. damaa paas bay tey match bi demagul fenn de. Ah? ñaata ñaata la nii. 1-0 1-0 waaw. sew lay jaajëfal. da ngay delluwaat fa ne. ñu continuer ba tey di mel ne nag Cheikh a nii toog laay la la sama xarit kii moom maa ko bëgg a sam bopp noonu Cheikh Sarr nuyu la. waaw ñu ngi lay fay bu baax a baax. Biba TV ñoo leen seet fii ci Grand Mbao ci stade ñu gis na yéen yéen a organisé lii nii ban ku leen jox initiative ak noo leen toogee ba xalaat ko. waaw waa ñi am contentement bu baax a baax a baax a baax di euh, nuyu seen site internet bi. waaw sunu people TV waaw waaw seen people TV. waaw di la nuyu yow bu baax a baax a baax. waaw initiative bi nag si ñu xit la jógee. initiative bi si ñu la jógee ndax match bi ñu defoon géejewaay euh, ci la xool ni Séwi ak Bataay war nañoo fubal te tey jii ku xool Bataay xam ni Séwi ñu leen di a léegi nag comme que man yàlla bi muy tudd sew man maa taxoon ndax ah. boo jëlee sama yeel yi jël ko jëlee sama yeel yi xam nga sew buñ koy tudd man maa tax <laughs> waaw man maa tax ñu naan sew léegi nag yàlla man deuxième mi-temps bi laay xaar waaw man deuxième mi-temps bi laay xaar loolu ma jaaxal moo tax ma ne xaaral ma laaj ne la moo tax nga toog nii yëpp deuxième mi-temps bi laay xam nga gars yi euh. nga yoxal leen tuuti yoxal waaw léegi nag bi nii dama fii yéen Médié ngeen organisé événement bu mag a mag boo xamante ne ni li doon ñaan yàlla mooy stade bi fees te ñëpp ñëpp si nañ leen noo leen noo leen noo leen euh, lii daal ba am suñu bu rafet bii ba da fexe ba dajale ñëpp waa mais c'est une bonne organisation dëkk bi dafa metti neexul mm-hmm. nit ñee stressé koo ji gis corona bi troisième vague bi sonal nit ñi Tapha Thiam ak équipe am ni pourquoi pas lii moo waral lii pour bégal sénégalais yi eh, amul leneen ñun lii la ñu xam ñun comédiens yi lii di foo di kaf di ree suñu biir nag ah, suñu biir dafa am lu ma fi yéeg mooy que waa Dakar Dem Dikk dañ leen a jox ay bus pour nit yi ñëw loolu noonu nu ma demee waaw ah, mais quelque chose boo xam tamit neex nañu torop wax dëgg yàlla ndax waroon nañ leen demander aide wala demander jàppale pour dem beeg dikki bañal ñu ko wala ñu laaj ñu xaalis bu ñu amul wax dëgg yàlla teg nañ ci seen loxo li fi def yëpp li fi am yëpp ay doomu aadama ko def te Sénégal teranga jooju la ñu xam boo gisee nit ñuy def lu baax nga jéem cee jàpp pour mu gën a baax lii rek la ñu am ah. li ñuy wax nag mooy président Macky Sall na jàppale comédien yi wax naa ko sànq naa ko waxaat gis nga ñun ñi yëpp ay comédien yi ñoom ñiy feeñ ci télé rek ñooy artiste théâtre sur scène bi ñi fi daje tey bari nañu leen xamul am na ñuy posé question kii kan la kii kan la ñooñu ci théâtre sur scène bi lañ yëkkat dañoo soxla bu ñu mën a defee suñ création yi cinéma am na foo ñëpp am nañ fond loolu nag maa ngi koy demandé ki nga xamante ni sénégalais la fi nekkal muy première dame na ci jàpp Macky Sall ñaanuñu ko ñu mu ñuy sarax nañu defal benn fond boo xamante ni bu ñu defal suñu création bind suñu demande dem ñu financé ñu ñu def suñuy création liñ soxla bariwul na ko def un milliard ñu commencé ñu jox ko résultat mu yokk ko te lii laa wax ba leneen ñëw. waaw looy wax sa mbokk artistes di leen wax ne nañu gën a jàppante man loolu laa leen nañu gën a jàppante bokk ndey bokk baay benn lam du yëngatu dafa caam su bëggoon def lii moom kese tey na ci wéet. te groupe bu mag la ubbi xeebul ma Samba xeebul ma Demba jël ñëpp dugal leen ci. kuy defar la de xale la mun ngi ci yoon man li ma koy ñaanal sam frère la ñoo bokk benn koñ ñoo juddoondoo ma yar ko muy def lu rafet li ma koy ñaanal mooy li mu mën ren yàlla ko mën lu ko ëpp déwén seen télé bi nag maa ngi leen di ñaanal ndax yow yàlla ñu boole nga def ma sa doom nit ñi ne mënoo maa jur nag man question boobu jaaxal na. maa la jur te maa la jur tey maa la jur ba suba maa lay jur. waaw lii moom vraiment famille la famille fi moo daje fii te lii dafa rafet ñeneen ci télé bi la ñuy gisante ñeneen ci yeneen programme mais lii dafa rafet lii rafet la. rafet na trop waaw macha allah. yow mu mel ne que yow si sew yi si sew yi nga dafa mel ne si sew yi ngay fubal. waaw man sew route laa doon fubal. sew route laa doon fubal et puis da ngeen ñëw sama koñ fi ma juddoo yaroo fi. ah fi nga juddoo yaroo fi stade bii di fubal stade waaw ma maîtriser fii waaw. Ah, waaw ñun ñoo recevoir gars yi quoi. mais Sénégal daal yàlla fi jàmm yàgg. match bi match bi ñaata ñaata la. Ah, instant yi am nañ am nañ tàmbalante arbitre bañ ko man naat plainte yi man rek gaañ nañ ma six fois at bi bañ mais loolu amul problème naa def sama plainte déposé ko niveau du Sénégal. loo wax loo wax sa mbokk artistes yi. di leen sant di leen gërëm di ñaanal artistes comédiens yëpp ñi nekk ci kaw ñi nekk ci suuf ñëpp ñi ci suuf yàlla na leen yàlla yëkkati ci kaw ñi ci kaw it yàlla na leen yàlla may xéwal bañ tara seeni waaju ci barke jaajëfal ma ma kon na nit ñi ñëw bind yëglu ma sax ñu participation mais au moins nit ñi xam ne tant de personnes ñoom ñooy ñëw man ñu dugal ñu dugal bi. ñan ñoo dugal stade bi laa ko dugal. ah da ngay bañ da ngay bañ non man moom maa ngi ci sew yi parce que xam nga damaa tay fit. waaw ah tay fit da génn booloo ama mas pata ak sew bu ñu ko defee comédie la parce que pata buy daw moom gisoo ko moo tax ñu def ko guddi parce que bu ñu ko defoon bëccëg boo dina bari <laughs> c'est pour cela ñu def ko guddi voilà léegi gis ci waa dikk bi nga xamante ne dañoo maye kaar yi ne artiste ñu dañu koo may ñun artiste waaw ñooñu loolu dañuy bëgg baax a baax a baax parce que nit mënoon na def man sa bëgg nit ñi ñëw te nit ñi duñu am euh, activité wala ñu mën a paas ñëw day metti donc ñu def euh, disponibilité yoo xamante ay bus la donc ñooñu moom ñu jara sant la ñu jara gërëm lañ yàlla ngeen fi yàgg bu baax a baax. ñu ngi leen jaajëfal parce que c'est ma leen di yëgal nag de la femme la muy amee fële ca Guédiawaye le 15 entre 2000 incha allah bu ko kenn. non seen people day ñëw sunu people ma gisee ni ma xoloon ah. ah, ni a yow fan ngay joué instant bi ci sew yee li wala ci jii nan nga gisee initiative bi nga xamante ne waa artistes yi jóg organisé nañ ko. waaw di am sant rek sant bu baax li day wan ne artiste Sénégal yëpp benn lañ li day wan ne ñun ñëpp dañoo boole suñu doole boole suñu lépp ndax wax dëgg yàlla ñun ñoo moom aar bi te Sénégal ñun ñoo koy neexal kon nag ñun tamit dafa jot ñuy bëggal suñu bopp moo tax lii am. jàppante nday ak baay loolu wax sa mbokku artistes yi mois wala chaque année ñuy daje di bëgg suñu bopp. est-ce que yéen ni ngeen seen si télé bi noonu ngeen di mel seen kër yi maanaam seen dëkkandoo yi affaire waaw waaw waaw naturel parce que am na neex ci yàlla yàlla da koy def ci nit ñun di juutu nangam sax non non ñun dëkkal leen di wan wan nga xam ne moom la liggéey mais duñ ci ñàkk fayda benn bopp aussi duñ ci ñàkk fayda loolu rek bay sonn. ah yow commencé ah, bi ñaata ñaata la. 0-0 pour la. léegi yow nar ni. football rek xanaa incha allah. Ah. waaw waaw ah mu dafa mel ne yéen la ñu mën a de. non non kenn mënul kenn zero zero xaasaanu ah, ma ci fan la. zero zero kenn dugal ndam dama dem dugg. ah yow boo dugalee xëy na xëy na bii dina. waaw yàlla yàlla mën naa def loolu. Ah, mais ñu kot la gis si télé bi ak si kii ndar. waaw xaaral après ma ñëw après ma ñëw. waaw yaa ngi ñëw. waaw xam nga lii dafa neex suñu biir la amul kii war kii ay maga rak xarit ñooy football fi mm-hmm. donc il faut nga ñëw nga doon toñ bataay ñoo tooñ seew waaw balaa ngay ñu lay kar mbedd bi. léegi yow tax su footballoo yow. waaw xam nga tu maay surgay comédien yi sama gars yi ñoo la maa ngi ci ginnaaw gars yow tey jii koo faral koo faral sew yéen wala pataay. lu jaaxal ci digg bi laa faral ci digg bi laa faral. da laa faral.

comédiens yi wala acteurs yi nekkuñu benn ñii dañuy xuloo ñii dañuy werante ñii dañuy xeex ñii jubóowuñu ñu bëgg a wane suñu bopp ni ñun dañuy jubóo parce que ñun dañuy bégalaate ñun dañuy kontaan loolu nit ñi kon ñun war a dund contentement boobu. entre jubóo am contentement na ay association yoo xamante ne am na fi mais groupe bi nga xam ne créé nañ ko muy groupe whatsapp bi tey jii euh, lii yëpp xew ci match bi gars yi am ci yeneen i xalaat itam parce que booloo moo ci am am ay ñoo xamante ni ay doyen ay kilifa lañ ci wàllu théâtre ñoom ñëpp dugg si te ñoom it ñëpp am nañ ay yeneen xalaat yoo ne bëgg nañ koo doxal ci biir groupe bi incha allah ñu ngi ciy xalaat xool yan taxawaay lañ am parce que mbooloo mooy doole mais teewul itam am na ay association fi nek waaye bu ñu demee ba nga xam ne war na yegg foofu wala mébét nañ loolu itam ñu def waaye mébét bi ñu amoon rek mooy def match bi fekk comédien yëpp ñu boole leen ñu kaf ree def sew nit ñi mbalagante bokk ndey bokk baay parce que daal ñun comédien yi ñun ñooy yeete ne nit ñi juboo ñun ñooy yeete nit ñi kaf ñun ñooy yeete nit ñi ree leen ci ñun la war a jiitu koy wan nit ñi wan ne nun dañoo juboo nun lañuy kaf nun lañuy ree waaw li ko waral mooy oy dugal nun <laughs> waa ci la bokk nag l'arbitre eh hors jeu la hors jeu parce que hors jeu la war naa la hors-jeu la. non. hors-jeu la. waaw benn xaar yow fan nga fan nga far. Ah, daanu de. maag baax. sapeur pompier yi na ñëw daanu de. Fata daanu de. croix rouge bi. man ñaan ñi xanaa xamoo ñoo ci gën a nekk sama xarit. barke sëñ Tuubaa yow mu mel ne nag da ngaa ñëw déplacement waral lool. ah li waral mooy. waaw maanaam booloo rek. artiste comédien yi pour wan Sénégalais yi kane ah. xëy na dañuy gis baax ah. di joué fële di gis peur di joué fële waaye à loolu ah. ñun ñëpp daal ma fi ma laal ñun ñëpp benn lañu kii moo gën a oyof mbaxana waaw ndax baax que xam nga lu tax ñoom lan mooy mënoon nañu wax ni rek artistes yi duñ ko balan ak ñoom ndax tey leen ñun tey leen leen xam mais defuñu loolu ñoom ñoo organiser affaire bi defar ko ba mu rafet ba pare moom boo nekkaat lu ko bàyyi wax si artiste du la xeebal bés. kii nañ ko nañ ko seedeel loolu. nit ku woyof la ku baax la. loolu man maa ci xam dara ndax naa la ko wax. di profité nag ne bés bii xajatul mbaaw teere mbaaw. nañ ko yóbbu les pôles Sédar Senghor. même bu ñuy defaraat bi pour ñun sax. te non bul jooy naa stade bi ci jam ñaajo ñu koy tabax te war a pare. président de la république baalaat na fi nga laal defar na décret. ne artiste comédien ñoom ñoo war a njëkk a football foofu ci inauguration bi waaw ah, moom man dégg naa ko dafa leer nag mu mel ne que dama fa gis ay daba bis dem dikk lan ngay wax si loolu noonu Dakar dem dikk ñooy suñu partenaire numéro un ñoo ñu jox juróomi bis te nag ñu am partenariat ak ñoom ci loo xam ni bu match bi jàllee lañ ko war a liggéey waaw muy lu am solo muy Dakar dem dikk ñu gërëm leen sant leen dégg nga Sow borom añ borom Angleterre mi jënd mayo yi jox nuy añ jox nuy ndox nu naan nu gërëm ko sant ko DJ Yves DJ Yves nu gërëm ko sant ko fukki dërëmam mosuma koo lekk wax rek yàlla tax waaye lim nu wan lan ko delloo moom dong mooy télé bi nga xam ne def nañ fa émission direct mu wëlbatiku rediffuser waat ko rien que pour lancer match bi. match bi na yàlla guddal fanam. dana xam ne dana xam ne lebal na jaboot duuli guddi.